sàll nga bëgg a dox ci maayen bi lekk fa lu nga fay lekk lekk kat nga dama nga lekk day booy lekk day te nga noppi may ñu jàmm doo cottu ndayam booy dof nday doo sarab ndayam te bu ma nekkoon Sénégal woon la ni doo sarab ndayam yow doo dara boy wiki boy bii mooy bandi bandi lu fii ñun bi ñuy toog nday di parteeru grand grand yoff di dugg nday ci koñ yi mus na dégg ñu agressé ñu jou jaamari ñun bi ñuy toog jaamari boobu dof nday anamu xanaa dafa deewoon buñ buñ toogee nday Grand Yoff di tàngal nday partière Grand Yoff ana dof nday moom wala dof nday moom du Grand Yoff bu ma bu ma xam boobu la dëkkoon mais guy gaan bi il se il se mel doon ba pare yor làmmiñam bu kattan ndayam bi di di wéy wéyal ay dof doo sarab ndayam dof nday te bu ma bu ma la jax damay warax sa nday nga xam yow doo sarab ndayam man bàyyi naa ay jaase paaga de Kalachnikov laa xam léegi dugg naa ci carré yi ba ba génn léegi def naa Queens def naa Harlem def naa Brooklyn def naa Bronx dugg naa nday ba ci bandi chinois yi def nañ Corée du Sud def def nañ euh, Japon di ci samouraay yi dugg nañ nday ba ci samouraay yi ñoo la gën a feebar ñuy xot arakir yi xot nday biir yi yow doo sarab ndayam dof nday doo sarab ndayam maa la ko tey doo sarab ndayam ñetti yoon da ngay duul nga lekk nday boo buggee lekk alalu Amadou Sall te nga may ñu jàmm yow doo sarab ndayam yow ma xaram yow mun ngaa napp nday nit yi fii yow nga bugg a moomee Sénégal xool bu ñu la kattee sa nday damm ci brique nga tëdd doo sarab ndayam nga booy dammitu nday brique rek sa ndodd gi sa ndodd gi nga wàcc ñu sotti la nday essence ba nga tooy dóor la benn brin almet nga seey yow rey la dafa yomb benn dammitu brique ñu katt ko nday sa ginnaaw sa sa sa sa baat bi nga wàcc ñu tuur la nday essence dafa yomb essence bu cent deux cent francs yow yow tàkk nga sànni la nday benn benn almet laa la woon la ginnaaw nga seey nga yaay raw këriñ tappat ngay nga a ngay dof dof lu di kii eh, ah, ah, ah, bandi bandi lu nii maa ngi leen di nga ma waxoon si dëkk nga ne ma bu ma ko. oh saa waay booy menace su Sénégal <laughs> la ma mi ngi doog doon bandi ñun 2010 ñi ñuy ay caa ca Saoling Saoling ay jaasi Shaolin bu may wàcce nday jaasi Shaolin Sénégal sama gars yi boo ko génnee dañoo foog ne para parapluie la daf na yemal man bu may wàcce nday jaasi Shaolin Sénégal di ko dugal nday fii ci conteneur yi di ko yóbbu nday Sénégal pour dem Shaolin seen nday boobu xolal boobu yow foo nekkoon yow nga yor sa damm ci jaasi di baax nee naa maa ngi nii kattal ndayam nga naan ma maa ngi nii doo dara Sall nga bëgg a dox ci maayen bi lekk fa lu nga fay lekk lekk kat nga dama nga lekk day booy lekk day te nga noppi may ñu jàmm doo cottu ndayam booy dof nday doo sarab ndayam te bu ma nekkoon Sénégal woon na ni doo sarab ndayam yow doo dara booy wiki booy bii mooy bandi bandi lu fii ñun bi ñuy toog nday di parteeru grand grand yof di dugg nday ci koñ yi mus nga dégg ñu agressé ñu jou jaamari ñun bi ñuy toog jaamari boobu dof nday anamu xanaa dafa deewoon buñ buñ toogee nday Grand Yoff di tàngal nday partière Grand Yoff ana dof nday moom wala dof nday moom du Grand Yoff bu ma bu ma xam boobu la dëkkoon mais gaan bi il se il se mêle dans tout ba pare yor làmmiñam bu katta ndayam bi di di koy wéyal ay dof doo sarab ndayam dof nday te bu ma bu ma la jàpp damay warax sa nday nga xam yow doo sarab ndayam man bàyyi naa ay jaase paaga de kaas ni kof laa xam léegi dugg naa ci kaara yi bo ba génn léegi def naa Queens def naa Harlem def naa Brooklyn def naa Bronx dugg naa ndey ba ba ci bànn chinois yi def nañ Corée du Sud def nañ euh, Japon ci samouraay yi dugg nañ ndey ba ci samouraay yi ñoo la gën a feebar ñuy xot araakir yi xot ndey biir yi yow doo sarab ndeyam dof ndey doo sarab ndeyam maa la ko wax doo sarab ndeyam ñetti yoon da ngay dama nga lekk nday boo buggee lekk alalu Amadou Sall te nga may ñu yow doo sarab ndeyam yow ma xaram yow mun ngaa napp nday nit yi fii yow nga bëgg a moomee Sénégal xool bu ñu la kattee sa nday damm ci birig nga tëdd doo sarab ndayam nga booy dammitu nday birig rek sa ndodd gi sa ndodd gi nga wàcc ñu sotti la nday essence ba nga tooy dóor la benn brin almet nga seey yow rey la dafa yomb benn dammitu birig ñu katt ko nday sa ginnaaw sa sa sa sa baat bi nga wàcc ñu tuur la ndey essence dafa yomb essence bu sa deux cent francs yow yow tàkk nga sànni la nday benn benn almet laa woon la ginnaaw nga seey nga yaay raw këriñ tàppet nga ngay dof dof la di eh, ah, ah, ah, kii di bandi bandi lu nii. maa ngi leen di su oh, Sénégal lama la waaye nga naan léegi kii kii kii xanaa moom mi ngi a doon bandi ñun 2010 ñu ngi menacé ñuy ñuy braaye nday ay caa ca Shaolin Shaolin ay jaasi Shaolin bu may wàcce nday jaasi Shaolin Sénégal sama gars yi boo ko génnee dañoo foog ne para parapluie la daf na yemal man bu may wàcce nday jaasi Shaolin Sénégal di ko dugal nday fii ci conteneur yi di ko yóbbu nday Sénégal pour dem Shaolin seen nday boobu xoolal boobu yow foo nekkoon yow nga yor sa damm ci jaasi di baax nee naa maa ngi nii kattal ndayam nga naan ma maa ngi nii doo dara.